kon question bii nii ñu doon waxtaane question diine la képp koo xamante ne bi dañ nga cee war a ba bëgg indi xalaat rek na jaar ci diine waaye deesu ko teg ci xel te li ma ci seetlu mooy mboolem ñi ci wax ñëpp maanaam ci seen xel mu rafet lañ koy natte di ko ci teg te du noonu ndax Sénégal mooy réew moo xam ne moom euh, diine ji dañ ko yàpp question boo xam ne dafa soxal diine ñëpp ngay dégg ñuy wax ci. médecins yi dañ ciy wax politiciens yi dañ ciy wax journalistes yi dañ ciy wax opinion publique bi dañ ciy wax te déedéet demewul noonu parce que euh, bu dee mbirum santé la dañ naan na ci docteur yi wax bi fi corona bi ñëwee dañ neen nañ déglu borom xam-xam yi kilifa docteur yi nga xam ne seen xam-xam ci loola màcc ñoo ci war a wax bu dee question euh, sécurité la ñu ne ñi ñi ci ñi ci tàggat nañ ci wax. question bu mën a doon dañ naan ña ci wu nañ ci wax waaw pourquoi léegi bu dee question diine ñu bëgg na kenn ku ci nekk nag ne am naa droit daal joxe ci sama xalaat déedéet demul noonu parce que diine bu fekkente ne da gëm ne yow jullit nga texte yi nga xam ne moo tënk diine ji ci nga war a tënku moo ci la war a tënku euh, xaru la wala du xaru loolu bëri na ci ay borom xam-xam yoo xam ne dañoo saxaal ne xaru la te am nañ ci ay cëslaay yu dëgër ay dalil. preuve yu leer yu koy tegtale ci alxuraanu karim ay nas texte aaya yu koy and yu koy firnde yu firnde yoo xam ne manees na cee jaar saxal ne xaru la am na <coughs> damay joxe rek exemple alquran dafay wax ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka loolu mooy lan mooy bu leen di dugg ci mbir moo xamante ne bii seen bakkan mën na caa des bu leen bu leen di ca dugg ta te tay ko mbir moo xamante ne bi wóor na leen ne lii sa bakkan mën na caa des nga dugg ca tay ca tay ko alxuraan loolu nee na bu leen ko def mooy nit ki su ko defee su ca faatoo eh, dafa dafa dafa tay la bakkanam loolu alxuraan la texte la bu leer ñenn ñi nga xam ne dégg naa ñu koy dàq dañuy dellu ci naan <coughs> eh, xaddis bi yonent bi di wax innamal a'maalu binniyaati wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa maanaam nit ki yéeneem bi muy dugg ci gaal yi doon toon xaru te yàlla nit ki yéeneem rek lay xool ñoom texte boobu lañu jëfandikoo waaye ñu bàyyi xel ne ci euh, science religieuse bu ñuy jëfandikoo texte ñaari texte bu ñu bu ñu dajee texte bi nekk xadis mooy wax yonente bi texte bi nekk alquranul karim texte alquran bi moy ëpp doole moom lañu war a jëfandikoo te aay te te preuve yi nit ñi di sukkandikoo ci masala bi ñaari aay yi ma la wax nii ci la ñuy li ci gën bari te kon texte alquran am na fi texte alquran moo ëpp doole wax yonent bi kon texte alquran bi lañu war a jiital bu ñuy jëfandikoo benn atte bu mën a doon kon ñi nga xam ne dañoo wax ne xaru la am nañ ay preuve yu leer nekkul loo xam ne da ko waxee ci tey bakkanam wala nangam ak nangam li ma leen di wax nii su ngeen toppee gëstuwaat ci bu baax laaj ay boroom xam-xam ay fuqaha dañ leen ci jox ay atte yu leer ci conférence yi suñ bàkkee doon Abdourahmane doon def ci jumaa ji rek bu ngeen fàttalikoo question bii nii laajoon nañ ko ko mu tontu woon ci même réponse ne ko def dafa xaru loolu mën naa leen cee jox preuve ngeen dem gëstu jiwaat ko ñi nga xam ne dañoo jàpp kon nekkul mbir moo xam ne da ngay toog rek parce que diine kenn du ko tënk ci am xel diine lim lay tracé doo ko teg ci xel mu rafet déedéet ay texte moo ko couvrir lépp lu ci nit ki di def am na ay texte yoo xamante ne bii ca la euh, war a ca la ca la ca la war a dellu